ci lamb yëpp bésu tey bi bés bu am importance la ci moom gagné mooy tax mu dellu siwaat ci place am ki nga xam ne mooy Balla Gaye fa mu teg bëtam la ko fay tax a yegg mooy gagné tey ñoom ñaar ñëpp liggéey nañu ñoom ñaar ñaan lu nañu ñoom ñaar ñëpp ànd nañu ak seen i bokk ñoom ñaar ñëpp am nañu yaakaar waaye tey daal bésu dëgg la Bombardier moment bi moment bu doy waar la waaw moment bu doy waar la may profité di wax euh, waa kër mbër yi ñoom ñëpp ñu leen Euh, nañu ànd ak dal sa xam ne sport la rek Sénégal rek moom mooy. toujours alwaxa kër Balla Gaye 2 ay waa kër amatuñ jàmm ku dem kër Tyson. xaalis ko si mënoo la ngay rapporté. dimanche 31 juillet 2011 stade Demba Diop. trophée El Hadj Mansour Mbaye Mohamed Ndao Tyson le leader de la génération pour parler Balla Gaye Tyson door na ko Balla fayu ci ku demee taxawaat song a Tyson door na ko crochet gauche oh, Balla Gaye Tyson ñu ngi xeex na gannaaw paqueté na ko attention Balla bañ na jàppante nañu Tyson